bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasuulillaahi karim sallallahu alayhi wa sallam alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi gërëm sunu boroom di ko sant ci lim nu may ñu fekke bis bii di fas yéene la nga xam ni axlu bayti gi mooy sanga yi nga xam ne si dëkk bi confié woon nañu benn travail pour ce que si lii ñu jëm ñu ànd si ñun ñëpp ak dal boole force yëpp mu doon liggéey bi nga xam ni suñuy kilifa yi ñoo nu ko santoon ñu àndoon sa waa le commité des sages le chef de village élargi au chef de quartier ñëw ba si ñi nga xam ne mooy les formation politiques ñëpp ñu booloo pour que Cambérène am benn liste consensuelle parce que élection locale la faw ñëpp ànd si loolu nag bu ñu ko bu ñu si yàlla dimbalee ñu koy liggéey comité des sages liggéey ko di ko indil les religieux sanga yi ñu koy xool di ko sañtu man coordinateur rek laa si woon lii addu bii may wax samay mag ànd seeg suñuy rakk ñun ñëpp ñoo ci bokk daje ànd seeg suñuy kilifa bon si ndëggale sunu sëriñ yi ak sunuy euh, chef coutumier yi chef de village bi ñoom ñoo fi wootoon fii ñu nekk benn réunion pour daan ñu xalaat nag lañuy def pour am liste unique au niveau de Cambérène comme ni ko Moustapha waxoon bi ñu wootee nag fii partiment ñëpp ñu ngi fi woon chefferie euh, les religieux la chefferie coutumière les délégués de quartier les imams et toutes les formations politiques étaient présentes bi ñu waxtaanee ni leen daal li ñu bëgg seen bëgg-bëgg mooy waa Cambérène yëpp ànd am benn liste naka benn dànk liste unique bi ñu ko defee si huit xam nga neuf yi étaient présents six si joxe nañ seen accord trois yi si des ni il faut ñu retourner seen base pour demander lan la war def bi ñuy dajawaatee kër Moustapha ñoom ñëpp à l'unanimité ñu d'accord na ni accepté nañu pour avoir une liste unique au niveau de Cambérène à partir de là ñu ne nag puisque à l'époque il y avait 56 conseiller ñu xool naka la ñuy répartir les conseillers au niveau des différentes euh, organisations si loolu c'était un travail ba nga xam ni dafa jafe woon mais ñu jëlee si élection yi 2012 ba 2019 xool poids chaque organisation ak chaque parti politique à partir de là ñu définir benn quotient ba nga xam ni moom la di ku nekk ñun la temps de conseil nga war am à partir des grands ba si petits ku nekk daal sedd nañ la à la suite defe naa le conseil passé à 66 ñu tax benn rectificatif ban fa jógee amoon na tuuti kii xam nga politiciens yi mais quand ñoom ñëpp accepté nañu en fait de compte li leen jox quota bi ñu leen jox léegi nag ku nekk ñu laaj la euh, liste bi la jox le nombre nga envoyé nu ko ku nekk sa sa carte d'identité ak ban position la war tenir soit sur la liste majoritaire soit sur euh, la liste proportionnelle soit comme suppléant on a essayé vraiment gars yi def nañ un travail de fourmi à l'ordinateur ba ku nekk ñu def ko respecte également la parité homme femme homme femme ba mu jeex c'était pas évident mais quand même góorgóorlu nañu ba am la liste majoritaire unique la liste proportionnelle unique et les suppléants bon ba ñu fa jógee on a demandé aux candidats au divers candidats waaw ñu <laughs> ñu jox nu seen seen CV ak seen lettre de motivation ak seen programme suñ ko amee am na ñu répondre am na ñu andiwul bi nu paree ñu dajale loolu lépp liste yeeg euh, candidat yi présenté wu et tout jébbal ko sëriñ si ni leen ñun suñu liggéey fii la yem géré nañu le côté technique ak organisation bi léegi nag pour la tête de liste et certaines positions yéen yéen a koy déterminer bi ñu si paree ñoom ñu waxataan ak seen biir demander ay kii étudier dossiers yi ensuite daal la choisir monsieur Doun Pathé Mbengue ni mooy nekk en tête de liste mooy diriger liste unique bi loolu daal à peu près tënk ci wolof laa ma doon wax foofu la sunu liggéey yemoon li si des nag ñoom ñoo ko euh, yor. yàlla bu baax ci li nga xamante ni xew na ci dëkk bi tey te lépp ñu doxe ko ci ndigal te nag ab ndong bokk na la lay jàllale sa diggante ak sa boroom mooy nga jëfe ndigal. dama ni loo gëm-gëm yàlla loo bëgg-bëgg yàlla loo farlu-farlu ci jaamu yàlla ci julli tisbaar jot sa xarte bëgg la yóbbu nga def ko juróomi rakk doo am julli ndax ndigalu yàlla ci tisbaar mooy nga julli ñeenti rakk kon dañuy sant sunu njaboot ñi nga xamante ni yàlla da leen nattu ñu nekk ci polotik bi di ci yëngu te sunu kilifa dafa nu daan wax ni politicien bu mu mën a doon su xamee lan mooy politique dëggi dëggi xam nee na su deewee kenn du ko ji àjjana su jikkoom rafetee yéeneem rafet ndax kat politique mooy fexe suqali sa gox fexe sa sa askan lépp lu nu soxla ci wàllu àddina moo xam wàllu faju walla wàlla njàng lu mu mën a doon nga yombalal leen ko kon nag ñu ngi leen di sant ñoom sunu njaboot yooyu nga xamante ni ku nekk amoon nga ci loo bokk amoon nga koo àndal waaye ba xalaat bi ñëwee ndigal jot ñoom ñëpp ñu summeeku ànd ak ñun